macha allah oustaz leeral yi am na solo trop xam naa bu ñu paree ci loolu tamit oustaz bëgg nañu waxtaanee deuxième vague corona coowal corona gisoon nañ ni mbir yi daanaka demoon na bay bëgg a neex mun nañ ko waxee nii gars yëpp fàtte woon nañ coow li ay màggal Touba événement religieux yu am yu am doole dayoo dayoo ñëw nañ ñu am corona amul tey ji ñu demaat ba jimmi jamono ñu ñu ñuy waxaat deuxième vague tey ji oustaz ban jàngat nga am si li ni loolu du am. <laughs> ay deuxième vague du xam nga euh, man sama ngëm du soppeeku wax naa la ba tàyyi yàllay sama borom corona bu ma waree dal damay dal est-ce que xam nga ni mën nañu jël mooy yëpp alxuraan laa lay bëgg a wax na mooy yëpp ñu jëfandikoo yi tax du nu feebar wala kuntum fii buruji mushayyada la yudrikukumul mawtu yàlla ne bu ngeen yéegoon ci catu montagne yi catu montagne wala ngeen dem fa biddiw yee ne nga làqutu fa yow pour bañ a dee nee na boo jeexalee dee fekk la fa rey la wala kuntum fii buruji mushayyada la yudrikumul mawt kon lu ñuy dawee korona alxuraan la danga ma naan gëm naa ko baa gëmuma ko rek nag mu jeex alxuraan danga koy gëm baa nga weddi ko mais loolu la yàlla wax kon ñun sant nañ yàlla te fan yi yëpp maa ngi koy wax man sama bakkan yi di purux purux yi moo gën a métti korona yow xam nga ko eh, nu mu tudd cancer moo gën a garaaw sida moo gën a garaaw yooyu yëpp a ngi ci réew meegum ak yeneen yu ñu xamagul ak ñi feebar toog ci kër yi xëy di dem hôpital nañu fexe ba nit ñi bañ a fàtte ñi feebar ci hôpitaux yi ndax corona. nañu bañ a fexe ba nit ñi fàtte yàlla ak yonent bi ndax corona génne leen corona seen xel yi ci dugal ci sunu borom mooy dëgg. deuxième wàgg mënul nekk pour lan na docteur yi wax ni ñu war a def ñu fogoru alxuraan mu ne xudu xisrakum fogoru leen ñu fogoru te bàyyi yàlla dogalam nag parce que dañuy bëgg a yàlla baa ñu bëgg jël palaasu yàlla. ñu bàyyi yàlla ak dogalam li mu ñu sant mooy moytu waaye li mu moom mooy dogal looluy dëgg donc moo tax ay deuxième vague ak quatrième vague ak troisième vague ak yëpp amul solo xam nga lu am solo yal yàlla di suñu kilifa inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yaxsanoon yàlla ñi kum collaborel doo tiit ku collaboré moom doo tiit ñun yàlla la mooy suñu collaborateur moo ñu bind bind feebar yenent bi ñaata ñaata fan la feebar quatorze jours quatorze fukki fan ñeent la Muhammad feebar ndeysaan benn bés manul dem jàkka mu yebal Aboubacar da ko demal jiiti nit ñi Aboubacar dem mu ne ah feebar war naa dox sama diggante yàlla ba duma julli ji daal di jóg jël Xasan ak Ousseynou caata ma leen jur mooy Fatimatu bintu Rasul ak Seydina Ali kii fiit Assane nekk ndeyjoor Ousseynou nekk càmmoñ mu lëng leen pour doole doole woo leen pour dem ci jàkka ji ñu yóbbu ko naka la dugg rek Ababacar yëg yëngu-yëngu ak xet parfum bi jógee ci yeneen mu ne ah góor gi dugg na yonent bi ñëw taxaw mu arrière pousse Moustapha ne du ko jiite Moustapha arrière pousse ko mu bëgg a wax ko su ma la yebalee nga jiite war a jiite ma ñëw nga jox ma ma jiite est-ce que bu ma la yebalatee da nga wóolu mu ne ko déedéet mu ne ko doxal wéruma rukkoo farata la te mënuma koo def liñ koy defee kon duma bàyyi farata ndax yéen doxalal Ababacar jiite Moustapha laa wax de quatorze jours la feebar altine ci une heure et la faatu feebar a ko fi jëlee dee ci feebar dara nekk yonent bi ne ne yaram dul feebar baaxul laa xayra fii jismin lam yusib yaram wudul feebar baaxul ñu léeg-léeg sa war nga am sax bakkan yu foox fooxi sax mu tane <laughs> walla nga yor sax yenn yi mu tane di moins waaye nit ku dul feebar mukk ah loolu baaxul di moo tax yonent bi ne jàmm nekkul ci sa yaram il faut ngay feebar côté ay deuxième wàgg troisième wàgg kat ko jarul xalaat ah essayé leen ba xam man de su ma sañoon ñu bañ koo xalaat ba di ko wax ci site internet yi su ma sañoon ñu bàyyi nit ñi ci seen liberté suma sañoon nit ñi itam moytu su ma sañoon ñu dem liggéeyi parce que buñ liggéeyul fa réew ma jëm duñ ko xam ñu dem liggéeyi nañu dem liggéeyi koo gis muy dem mu ngi demaale feebar senegaal gi koo gis muy dem mu ngi demaale feebar te kat sëriñ bu ne la mën naa ci dara dalay nax rek ndax màggataayam bee ko mu dindi ko am déet feebar bi ko dal buy jox ndigg li bañ tee mu ko dindi fi ne kenn mënul dara dul moom kon feebar deuxième wàgg troisième wàgg dara amul yàlla rek am nañu dellu ci yàlla te fogoru te dem liggéey di def yàlla ci xel ya xol yi mooy dëkk merci oustaz dégg nañ leerale yi mais tamit si mbirum corona bi rek ñu ngi dégg nii guddi yu ñu toll nii jur ñu jëm vaccin dina yegg si dëkk bi tey jii oustaz Iran Ndao est-ce que ku ñëw indi la vaccin di nga vacciné wu si mbirum corona. ah boo ma ko leeralee. bu dee damay may faj kay danaa ko jël bu dee damay may wér gi yaram bu dee damay ñag aar ma ma am ci lu leer dinaa ko jël su ma ci amul lu leer du ma ko jël man kenn ma moom bind ma mooy yàlla kenn moomu ma su ma amee lu leer dinaa ko jël su ma amul lu leer ma seeti lu leer ba am lu leer dugg ci bu ma gisul lu leer ma bàyyi gis nga pikiir sabab lu la médecin du faj ki bind médecin mooy faj médecin du faj ki wàcce feebar mooy faj yàlla day rocci yàlla day rocci rek ñu nga pikiir yi sabab lu rek la doom yi sabab lu rek la siru bi sabab lu rek la yépp sabab lu la waaye ki ci kaw mooy dogal li mu ne dana ko ci rey mënoo fexe ba du ko ci rey li mu ne du ko ci rey mënoo fexe ba mu rey ko ci kon pikiir rek ay doom ak yépp sabab lu rek la yal na yàlla doon suñu docteur xanaa xamoo ni ñoo Ablaye Diouf Sarr ñooy joxe garab gi ak docteur yi looluy seen wàll attabibu yuti dawa wallahu jalla jalaaluhu yashfi nit garab lay joxe mais yàlla mooy faj nit garab lay joxe mais yàlla mooy faj sabab lu nag la nit moom dogal sunu borom a ko moom loolu xam ko farata la su ko defee nag vaccin yooyu ñuy wax bu egsee a man li ma bëggoon ñoom kilifa yi ñu joxe bon exemple njëkk-njëkk waaw a ah, man ni loolu laa ci xam ne wax dëgg yàlla am na fi benn at damaa xamul defe naa mari mari mari mari déedéet mari coli amuloon ah Eva Marie Coll Seck ban feebar la dajaloon Ebola wane wuñ Macky Sall ca pale ba am jisuleen leen ko ah? mu def koom ñëpp am wane ñu ko wane nañ ko waay wane Eva Marie Coll waaw ak kilifa yu bëri loola laa bëgg ñu delloo si ko nag su su vaccin yi ñëwee na ministre yi taxaw Macky Sall taxaw Macky vacciné wu ministre yi vacciné wu sëriñ si topp ca <laughs> dégg nga sëriñ si dem vacciné wu mu leer su ko defee ñun ñëpp danañ mën a vacciné wu loolu mooy affaire bi ah parce que itam looy woote jiitu ca rek Cheikh El Hadj Malick maa ngi koy wax ci Serigne Abdou laa ko déggee mu ni ndar dafa amoon feebar ñu war a pikiir nit ñi ñu lànk kom li xew léegi lànk kaare <clears throat> nee mu jur coow nag euh, tubaab bi ne day dof dof lu seen kaw gaa ne du dañuy ñàkku par force Seydi Hadji Malick ne leen teey leen lu ñàkku ngeen bëgg ñu ne waaw mu ne dana ñàkku xëy rek jubali kër docteur ba mu yeggee mu def nii ñu ñàkk leen ñu ne duut ñàkk jël wëttin bi taf ci alaaji Malick añ na ko bi nii wuti kër ku mu ñu ne ko Thierno Malick foo dem mu ne damaa ñàkku ji woon ñu xëy ñëpp ñàkku ji am de stratégie la su Macky ñàkkoo ministère yi ñàkkoo sëriñ si ñàkku ñu ñàkku am déet nañ ñàkku rek xam nga itam euh, looy woote da nga ciy jiitu xam nga yenent bi nu mu deful dafa ànd ak yi ñu jógee guerre ñëw ba ci benn garab bu sëqati naat ma ne dugg leen gars yi di dugg di sol di dugg di sol pour féexlu noppalu nelaw tuuti demaat ba ker ga fees na bi amul fu mu toog mu toog ci naaju abubakar sadiq wa jóg fa mu toogoon ne ko kaay toog fi ma toog ci naaju mu ne ko déedéet ku jiitu jiitoo dara aljana jigéen di yaakaar dama ko moom ku lay xañ keroog àdduna nu la yóbbu aljana toog leen ma toog ci naaju lii tegtal la ci ne boo léegi lu ma am ñu bokk lu ma amul ñu muñ ko jax tàkk kon kilifa yi nañ ci jiitu rek loolu mooy exemple bu leer bi nañ ci jiitu rek wax ju ma amul leneen amul commentaire amul gisee ko neneen jiitu leen ci rek voilà kuy digle ca ngay danga war a sangu siinoo kan koy digal ne la demal sangu ba pare am déet da ngay sangu ba pare eh, ñëw na ti day faj kay nañ def noonu rek man nag suñ gisee comme la xewoon ca Ebola bu président ñàkkooti muy ñàkk yi nag ñàkk yi ñu indi ministre bi ñàkku député yi ñàkku noonu ministre yi ñàkku rek président yi ñàkku député yi ñàkku sëriñ si ñàkku taalibe yi ñàkku njaboot gi ñàkku mu jeex waaye suñ naan ñàkk yi ti kenn ñàkkuwul kuy ñàkku na ñàkku rek man maa ngi fii benn affaire xaw ma fii la xaw ma fii mooy ñëkk yu njëkk yooyu daan bu jaree day nàcc di xasan su paree day def benn ronron waaw man am naa ko ci ñëkk yooyu yu yàggee donc bu leeree ñu ñàkku bu leerul ñu lu ba mu leer rek ñu ñàkku amul leneen coow léegi wax ji jaru ko waaw bu leeree daamaa yuri bu ko illaa maa laa yuri yonent bi neen na bu leeree dugal bu lëndëmee taxawal ba mu leer loolu